heure bile daaw laa ko woyoon ci bis beeg ci waxtu bi war na ma gis may santaate maam Fallou Laye <laughs> ay ca jërë jëf bàkk ba jib na générique bi départ na wasaare làmb tàmbali na ak bàyyi jiili <laughs> mbokk yi yu fas yéene xam nga rek euh, damay waaj a commencé plateau sama xel dem ci Euh, way ndongolo boobu nga xam ne macha allah euh, gone ak Pikine gi euh, yàlla na suufu Tuuba woyof ci kawam xale bi nga xamante ni macha allah yàgg naa bégal ñëpp ci àdduna xaw ma lan la nag xaw ma lu xew mais yàlla moo def may waaja a commencé rek sama xel nekk ci moom mbokk yi ñu leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax fii ñu leen di nuyoo ci wasaare làmb di am kontaante bu baax ak mbégte comme ni leen di jàkkaarloo waat ak yéen saa su ne di leen indi seen émission bi nga xamante ne mooy jàngat làmb nga xamante ne du émission boo xamante ne wasaare làmb moo ko moom mais seen émission la yéen a ko moom parce que gis ngeen lépp li nga xamante ne ñu ngi ciy xew euh, tey ma ànd ci ak sama soxna. Euh, soxna Fatima suba ma ànd ceeg Ousseyn ginnaaw suba ma ànd ceeg suñu papa muy Père Birahim Ndiaye euh, lépp rek ngir bëgg ngeen am lépp li nga xamante ni moom ngeen wër ci làmb ngeen am ko fii ci cent pour cent làmb fii ci wasaare làmb moo tax mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di xam ni rek àdduna euh, noonu la demee euh, di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xamante ni dañuy seetaan jël wasaare làmb def ko muy seen site internet numéro un bu leen fàttee abone nag dee leen abone parce que doo lay jël ndox doo lay waykat public mais doo lay wasaare làmb yéen la suñu mbokk internet yi ndax yéen dong yéen a fi yéen a ñu fi tax a toog te ñu ngi bëgg saa su ne rek ñuy dab seen bànneex mbokk yi tey ñu indi leen leneen loo xamante ni ñu ngi ko doon waxtaanee diggante fan yi yëpp ñu génn mu dox ci diggante Gris Bordeaux ak suñu papa Gaston Mbengue Gaston nekk promoteur boo xamante ni yàgg naa tëgg ay journée li jotoon xew yëpp ci coow li yéen a ngi koy dégg Gris wax na sànni Père Gaston Père Gaston wax na tontu ba tey kàddu bi mujj mooy Père Gaston daf ne Gris na ma delloo sama xaalis. xaalis boobu mu koy laaj muy 10 millions yi nga xamante ni joxoon na ko Gris Bordeaux avance Gris Bordeaux xeeb ko di laaj 25 millions yu ko Père Gaston war a jox gannaaw loolu yëpp nag Gris Bordeaux Père Gaston daf ko mayoon na ko bu fekkee li ngay woote dëgg la ci yow vingt 24 heures sama xaalis bi ma la joxoon 10 millions yi ma la joxoon delloo sil ma ko 24 heures yi jot na per Gaston nee na gisul Gris Bordeaux déggul Gris Bordeaux xamal na ni euh, askanu Sénégal Gris Bordeaux la day farce rek parce que yàgg na ko ko def yàgg naa dajeek moom naa ngi ko yoroo xaalis amoo dara euh, parce que li nga yoroon yëpp jënd nga ko ci suuf ak terrain mu doon loo xamante ne xëy na da koy mbalak mais nag am na loo xamante ne moom euh, waxtaanu biir néeg la warul mën a génn ci biir pénc mi Gris doon nag Père Gaston xamal na ni ko ñi koy dee naan ko dellool xaalis bi yëpp amul kenn ku mën a yëkkati 10 millions jox ko ngir mu delloo xaalis boobu mu mu ko yoreel kon day doon loo xamante ni rek waxtaan la ba déggoo mais bu ngeen bu leen fàtte mbokk yi Père Gaston euh, mag mag la boo xamante ni yàgg na ci làmb te it mën naa ni magum làmb la nekk gi mu nekk magum làmb moo waral mu xam lépp lu làmb di di laaj lépp lu làmb di dox combat nan la koy démarché événement bu ne tëgg na ko moom Père Gaston ba tax na euh, du ci Gris Bordeaux Balla kese mais gannaaw bu mu tënkee Balla ba Balla Gaye déggoo naa moom ci prix nee na moom amul problème mu adversaire problème mu prix la am ak Père Gaston te buñ déggoowee ci prix déggoo nañ ci prix ñoom ñaar li mu am mooy Père Gaston adversaire bu mu munti indi moom Balla Gaye de pare na euh, pour bëre euh, ki nga xamante ne mooy Père Gaston Gris Bordeaux mel ni kon ponk bi mu taxawoon ak Père Gaston da cee génn muy avance bi mu waroon jël diggante ak Balla Gaye ba jot 10 millions avance Euh, ñu ci bari xamal nañ ni ko euh, avance boobu moom Gris Bordeaux da koy delloo parce que wax na ko euh, ñu ci bari ñu ngi koy dundee yaakaar jàpp ne day delloo avance boobu waaye li ñu jaaxal mbokk yi mooy Père Gaston dañoo dañoo gisaat ci beneen sortie bu mu def xamal ni mbokk yi képp koo xamante ni mu ngi xaar combat boobu day tasaat li nga xamante ni nasoon na ko tas bi nag. day am ku ñu yaakaarul woon ni dina dugg ci ci ci ci làmb ji te dina bokk ci compétition bi muy Lac de Guiers parce que bu tasaatee mbooloo mi euh, Gris Bordeaux delloo ko xaalisam Père Gaston li mu fas yéene mooy jël Balla Gaye 2 boole ko ki nga xamante ni mooy Bombardier mu doon revanche boo xamante ni àdduna bi yëpp ñu ngi koy xaar àdduna bépp bëgg nañ combat boobu rawatina amateuru làmb yi mu jël Lac de jox ko ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène kon daanaka mën nañ ni la de Guiers 2 mi ngi njortoon ni année boobu du ci bëree Gris Bordeaux moo nar a def mbër moo nar a doon mbër moo xamante ne mooy doon le perdant parce que maa ngi koy wax saa su ne ni Gris ñi lay wax naan la dellool 10 millions yi soo ko delloowee duñu la tëggal komba ñi naan la dellool 10 million yi boo ko delloowee li nga bëggoon ci làmb ji doo ko am man nag ah xëy na ci suma xam-xam bu gàtt laay waxee waaye bu doon man maay Gris Bordeaux xam naa ne bu delloowee 10 millions yi Euh, moom mooy gën a jege per ndax 10 millions ragal naa ne lu euh, wolof naan ku bañ sàmbay rasu lay doon parce que Gris Bordeaux bu delloowee 10 millions yi rek Père Gaston dina ci tëgg journée bu mag 10 millions yooyu bu duggoon kër Lac de Guiers 2 du génnaat 10 millions yooyu bu duggee kër ama seen actuellement du génnaat 10 millions yooyu bu duggee kër Bombardier du génnaat bu duggee kër Balla Gaye du génnaat xëy na nag Gris Bordeaux euh, li ko Père Gaston di wax farceur la yàgg na ma di tooñ dafa mën a tooñ mais euh, ma ni dina génne dix millions yi ko père Gaston joxoon delloowaat ko ba tey nag déggaguñ ci kenn koo xamante ni ci ci njoñ waa Fass yi la moo xam muy père Moustapha Guèye moo xam muy père Abbas Ndoye ba tey ñu waa Fass ñu ngi nekk ci seen ruq depuis bi Gris defee sorti boobu ba léegi euh, gisaatuñu Gris Bordeaux mu mu def benn sorti wax xëy na nag euh, day waxtaan ak staff bi xëy na nag li mu waxoon ba tey mun na ci dellu ginnaaw parce que nag dix millions du cent franc mbokk yi ñu ci bàyyi xel bu baax a baax a baax yéen mbëru làmb bàyyi leen xel que ni euh, dix millions du cent franc ba pare am na leneen luñ bëggoon souligner mu dox ci diggante Garga Mbossé Sa Thiès mbokk yi combat boobu li dal yeneen combat li dal Gris doo Balla Gaye boo xefee mu ngi xeeñ ci combat boobu parce que combat bi euh, démb gis ngeen bi ma jëlee président écurie Dóor Dóoraat muy Cheikh Thiam wax na ci wax bu am solo ne ñoom gisuñu avance ba tey dégguñu avance Kaaw Sa dégguñu leen ñu wax ñoom it dafa mel ni gisuñu avance dégguñu avance te combat bi kii di Pape Thialis euh, borom Leewtoo production moo taxawal combat boobu depuis ba léegi déggatuñu ba combat bi benn avancement boo xamante ne am na ko. te pour man nag vraiment euh, mbas mi fi mu toll fi mu toll nii boo demee di jënd marchandise donte doo mën a fay lépp sax waaye war ngaa mën a dagg njëg li ngir fay li nga xamante ni jox Sa Thiès mu téye jox Garga Mbossé mu téye bu luy jàllee euh, ku ci nekk mun a taxawal seen combat ñoom ñaar mais combat boobu kon daanaka mën nañ ni taxaw na ci ay kàddu rek waaye taxaw ci ci kase parce que mbëri signé wuñu benn contrat buy wane ni euh, ñoom ak Pape Thialis am nañ benn contrat bu leen liyee ñoom ñaar euh, dégg ngeen li nga xamante ni moom la coach bi wax euh, muy président bi wax muy Cheikh Thiam ba tey Garga Mbossé mu ngi toog ci ruqam rek génnul defut sorti waxul parce que moom baaxoon na loolu moom Garga bari na ci yu baree baree bari yoo xamante ne bu xewee ci làmb euh, am Garga pour mu wax day xaw a métti xëy na nag stratégie boppam la parce que nag Garga Mbossé li muy génn di sorti di di wax ci làmb bariwul mu doon mbër moo xamante ni xëy na mbër mu mbër mu calme la euh, mbër mu yaru la mbër la moo xamante ni saa yu waxee mm, da ngay naw euh, kàddoom ngir respect bi nga xamante ni jox na ko ak askan wi waaye jox na ko njoñu làmb mais bëggoon nañ nag Garga Mbossé sa ruq boobu nga nekk nga génn def sorti ñu xam komba bi euh, foo ci tollu sa diggante ak Sa Thiès bu dee jot nga avance Euh, parce que joto avance parce que sa président moo ko wax démb diggante démb ak tey dara xaju ci kon war ngaa mën a génn def sorti euh, wax euh, combat bi nuñ koy nu mu demee ba xam promoteur bi jot ngaa déggante ak moom depuis ñu wax ko ba pare parce que avant tabaski la woon ba léegi durant tabaski ba léegi booy ñaar ak Tapha Tine jotuñu woon avance waaye ba coow li xawee jóg ñoom ñaar ku ci nekk jot na am na lu ñu leen jox ñu téye pourquoi pas ñu defal ko Garga ak Sa Thiès mu doon combat boo xamante ne askan bi ñu ngi koy xaar promoteurs yi euh, nañ bàyyiwaat xel bu baax a baax ni ñuy tëggee ci ci mbër yi ni ñuy tëggee làmb parce que vraiment amuñu lenn loo xamante ne war nañ ko mën a yokk parce que ñoom ñoo ñu gën a xam làmb ñoom ñoo ñu gën a xam terrain bi nga xamante ni ci la ñu nekk muy la géewu làmb lan la laaj loolu yëpp nag mbokk yi da ngeen koy dañ koy seetaanandoo rek euh, xam ni vraiment làmb moo laaj loolu mais nañ ci gën a bàyyi xel ci ñoom ñi ñoom mbëri surtout am fi mu toll nii vraiment euh, soxla nañ ku leen jàppale aussi soxla nañ ku leen jàpp ndimbal moo xamante ni jugee na ci état bi jëm ci mbëru làmb yi gisuñu benn ndimbal boo xamante ni jugee na ci état bi jëm ci promoteuru làmb yi mu mel ni fi mu toll nii euh, promoteurs yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi wane li ne waaye wane wuñ ko ak di di ko wax parce que boo gisee promoteur bu tëgg combat ba annoncé ko euh, yëkkatiwul kase jox ñaari mbëri moo lay woon ni am na lu leen gàllankoor loolu gàllankoor leen nag na état ñëw jàpp ci làmb état ñëw dugal seen loxo ci làmb nañu état ñëw gestuwaat làmb bu baax a baax a baax ñu xam ne fi mu toll nii làmb ku ko jàppale askanu Sénégal nga jàppale bon am na ci ñoo xamante ni nag ñu baal ma ci ci ci ni mu ko mën a waxee am na ci ñoo xamante ni xëy na mënuma xam nan lañ koy tuddee xaw ma ay tubaab yi ñuul lañ xaw ma qu'est-ce que ça xam nu ma koy tuddee mais saa su ne boo waxee rek ñu ne la noo làmb jëriñul réew mi dara déedéet bu ñu wax loolu am na ñoo xamante ni ci réew mi la dëkk ah finale Ligue des Champions day am moo xam mu am euh, mu am barsa wala mu am euh, fu mu munti am ci àdduna bi dañuy dagg billet. aller retour dem dagg ticket stade dem seetaani eh, loolu te loolu du suñu sport national ñun li ñu am mooy làmb te da ngay gis làmb am lu mel ni arène nationale wala mu am stade Diop Iba nga xeebal ñu làmb ji ñu wax nga ne non bëre eh, yëfu dof la bëre yëfi lii la bëre yëfi lee la te pourtant que ñu koy def ay noble lañ amul benn mbëru làmb buy encaissé avant cinquante mille francs lekk ko moom kese amul amul amul benn mbëru làmb buy jël avant cinquante mille francs nga lekk ko yow kese amul ci làmb mu bugg ko ak mu bañ ko amul kon yow miy gagné cinquante mille francs tey ñu jox la avant cinquante mille francs nga jël cinquante mille yooyu dem ci say bokk moo xam nga yëkkati mu néew mu bari nga jox sa yaay mu ñaanal la yëkkati jox sa papa mu ñaanal la sa yaay lépp loo ko jox da koy defaat ci kër gi sa papa lépp loo ko def da loo ko jox da koy defaat ci kër gi sëriñ ba ngay dem di ko jox mu lay ñaanal lépp loo ko jox da koy defaat ci këram supporters yi ngay jël sa xaalis moo xam mu néew moo xam mu bari lépp loo ko jox da koy defaat ci mbëru làmb bi bëgg mobilisation ndax làmb xam nañ ni affaire de gox la te ku ci sàggane sa gox yeneen gox yi dem bàyyi la bàyyi la ginnaaw tey boo demoon tey fu ma gën boo ne ko ñu laa jëm xale bi ci gën a ndaw mun na laa yóbbu ko ñu fëgala laa jëm xale bi ci gën a ndaw mun na laa yóbbu ko nees laa jëm xale bu ci gën a ndaw mun na laa yóbbu boo demoon géejawaay foo taxaw kër Balla Gaye laa bëgg a dem xale bu ndaw mun na laa yóbbu lu ko may loolu làmb boo ñëwoon parcelle ne kër Modou Lo laa jëm xale bu ndaw mun na laa yóbbu kon gox bu nekk mbër yi ñu fay fexe di def loo xamante ni képp ku tudd gox ba tudd leen kon nag ñun ñu nga xamante ne ñun ñoo ŋànk làmb ngala nañ leen jàppale làmb surtout autorité yi nañ leen jàppale làmb fi mu toll nii du moment boo xamante ni dañu war a toog rek di xaar saison bu ibbi ngir ñu mën a dellu siwaat ci activité làmb déedéet dañoo war a xool ñoŋ-ñoŋ yi làmb am ak rëq-rëq yi làmb am ñu jéem ko defar nii dès maintenant balaa saison bi di ubbi parce que bu saison bi ubbee rek activité làmb yi dalay jàpp ba li nga bëgg a def doo ko def ñoom nag promoteurs yi niñ daan def di dajaloo nañuy gën di dajaloo di waxtaan mbooloo doon benn say ndax wolof def ne mbooloo mooy doole tey nag euh, nañ leen ko jàppee noonu te xamee ko noonu mbokk yi tey loolu lañ leen indiloon ci jàngat làmb euh, di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di siyaar bu baax a baax sama xarit bi Adama euh, le grand cadreur la cadreur des cadreurs moom nga xamante ni lu mu cadrewul baaxul moo koy jaajëfal bu baax a baax a baax doomu nday euh, Coro moom mi nga xamante ni sama xarit boobu nga xam ne keroog présenté na ma ko ñu dem këram mu teral ñu macha allah xale bu am jom boobu ñu koy ñaanal rek yàlla defal leen jàmm euh, bokk naa ci groupe boobu fi mu toll nii boo tuddee aadama tudd Coro danga ma ciy boole di leen jaajëfal mbokk yi bu baax a baax a baax di leen tàgg ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqali ko ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat làmb jërë ngeen jëf.